waa asalaamualeykum di nuyu waa tele bi Dakar Buzz di nuyu sant ñëpp nag ñoom Fadel ak ñëpp parce que boobu ba léegi ñu ngi ma taxaw. waaw di sant waa télé bi daal parce que boobu ba léegi ñu ngi may jàppale saa yu problème ñëwee ñu ñëw taxaw di sant Fadel ak ñi ànd ak moom ñëpp di sant yàlla yonent bi sëriñ Touba di julli ci Muhammad di wax nag ni tey dama xëy toog di ndékki. parce que sama voisin yi moom bàyyiwuñ ma benn yoon kenn baax seetaanuma ma tëdd guddi euh, tëdd biti saa yu ma xëyee toog ci kër gi ba ngoon ñoom ñëpp ay ñëw taxaw ma ku ne ubbi sa kër ni ma loo bëgg a def defal ma xëy bi ma xëyee man may ki dama doon sangu sax damaa jël kii bi bay dem di sangu bi ma demee di sangu sama raq bu ndaw bi suñu caatu kër yuux ni ma wëli wëli wëli wëli wëli ma ni ko moo da lan la moo da mu ni kay kay kaay kaay ma daw rek fekk xale bi mu taxaw ci bunt bi yore benn gut ñu koy wax mu safaa sàll lool la wax ni noonu la tudd de waaw ak benn gut ak maar tox ni day dajji kër gi daa di kër gi foofu waa koj bi songu ko xale yu góor yi songu ko mu songu ma jël na sama saak nag ba yóbbu nañ ko sama saak bu ma wékk woon jël na ko sama carte d'identité ak xaalisam ci xàcc na marto bi tam jubale ma ko ni ma yow di nga xam ni man ak yow la foto na ma dinaa jël sa bakken léegi man damay ñaan di ñaan lii man damay laaj man fu ma war a dóor sama bopp fan laa war a dóor sama bopp laay laaj xale bi dëkk fii à côté di ma menacer photo yaa ngi dinañ ko dugal photo yi yi mu yëkkati marto bi ba jubale ma ko nee na dina jël sama bakkan pour kër gi waaw man nag samay wax fi mu ne xamatuma lu may wax samay wax a jeex sama doom yi toogoon ci buntu kër gi ñu ngi nii ngoon gu jot ñu ngi fi toog di attaay duñ fi buuse parce que kër gi sama kër la kayit yaa ngi nii leer nañ kayitu courant yi tam mi ngi nii leer nañ xanaa kër goo moomul di nga dem sonees ak Senelec ñu lay enregistré ngay fay ndox ak xale bi nag fi ne dem na ba xam ni pexem jeex na tiital na ma xupp na ma ba sonn man jigéen laa mai kenn du ma xupp man kenn du ma xupp may daaw sàccu ma fenu ma li xaalis bi maa ko ñaq tey moom dafa ñëw pour agresser ma yore martu yore saafara xaw ma saafara la xaw ma daal xaw ma asib la xaw ma dafa naroon ñëw daal xëpp ma ko daal tuur ko ci kër gi xale yu góor yi song ko waa koñ bi song ko photo nañ ko photo yaa ngi fii buñ paree dinañ ko jox Dakar Buzz foofu rek laa yem samay wax a jeex autorité yi laa bëgg ak ki moom réew mi ndax du duma jàppale lii ndax kenn mas na koo gis ban ban réew la ñu nekkati te nee na réewum jullit lañu seetaan lii man man man samay wax jeex na loolu rek laa amoon ci lu may wax. Présente je suis euh, Lamine Diop je suis le coordinateur de l'association des jeunes unis pour le développement de Gueule Tapée 2 euh, je répète encore une fois de plus. Je suis Lamine Diop, je suis le coordinateur de l'association des jeunes unis pour le développement de Gueule-Tapée 2. Je, ah, je, sais bon, on ne présente pas parce que je suis un politicien au-devant de la scène et du grand public bienveillant. Voilà, maa ngi wax ni kii suñu jigéen la def nañu ak ñoom 30 ans foo tax mën nga ñëwaale 30 ans lañu def ak ñoom moom fii nii mën naa wax ni euh, waraf dafa ni ñaar moo am loo bokk ak luñ la boole mais dañ ci bokk parce que 30 ans c'est pas deux donc xëy nañu benn jour gis nañ ni ñoom xëy nañu génne leen kër gi man yàgg na j'avais fait l'appel à l'association et les jeunes de Gueule Tapée 2 à ce ñu ñëw fii vraiment tamit bokk ak ñoom naqar bi fekk yàlla deful loolu et vraiment nous interpellons vraiment l'état du Sénégal et la justice que vraiment ñu taxaw si lii parce que lii tamit vraiment euh, kenn xamul lan la mais nekkul li nga xam ne dafay avancer un peuple et que vraiment nu sommes au Sénégal le Sénégal est un pays de droit selon son revenant vraiment ñoo ngi interpellé surtout monsieur le président Macky Sall ki nga xam ne si mooy le garant de la souveraineté euh, national mais ñoo ngi ciy woo ku nekk daal vraiment lii nañ ci taxaw j'avais même interpellé mon mon frère Ahmed Aïdara je lui ai mais dafa dafa Ahmed dafa feebaroon mais aujourd'hui daal képp kuy doomu Géejawaay ñoo ngi lay woo nga ñëw ci lii lii lii vraiment ñu wax ci ñun nag bon lu ñu xam mooy droit la ñu wax droit droit la ñu wax droit du paaka droit du jaasi mais droit droit la tudd kon nag vraiment on interpelle le peuple sénégalais devant cette fait et je vous remercie merci beaucoup Ouli waaw ah, man li ma waxoon rek maa ci laay dellu ni ma la ko waxee rek yéen samay voisin ngeen xam ni aw ma seen fay parce que booba ba yëpp booba ba léegi ñu ngi may jàppale bàyyiwuñu ma ma wéet waaw xale bi nag tey moom dafa xëy rek moom ñëw moom moom di ma agressé waaw dima ma agressé loolu la waaw tey xam naa ne du ngeen ko seetaan parce que yéen ñëpp ñun ñëpp benn lañ fii waaw loolu la. voilà beneen bi tamit dañuy témoin rek dañuy xëy si ñu ni bon xale bi ñëw na ubbi na kër gi bi ñu kër gi tamit ah ñun tamit ñi ñii ñëw bii ñëwee tamit dégg naa am na yenn fi am mais ñun dañu ñëw ci jàmm lu ñu bëgg rek mooy na lépp jeex si jàmm devant waaw delloo waaw lépp dellu si jàmm ah, kon Fata Mbaye. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen ku nekk sa sant. di leen wax man Fodé Thior maa ngi dëkk Gueule Tapée 2 en tant que jeune Gueule Tapée 2 waaw ñun daal ñun daal doole lañ ñu bëgg a jaay ñun nag ñu def ñuy ragal daf ñuy ragal loo ndax bu ñu suñu defee ñi suñu mag ñi ñun fu ñu jëm après waaw ñun loolu dañoo tiit fi mu toll nii moom sës nañ daal dañoo bëgg ku ñu mën a jàppale te yàlla tax nga jàppale ñu delluwaat ko këram te yàlla tax ñun loolu la ñu wax loolu la ñu soxla soxlawuñu xeex soxlawuñu xulloo amul mbir mi du xeexee xulloo daal nañ ko delloo këram ci jàmm ak salaam ku ñu mën a dimbali ñu la jaan te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax loolu la am lu may wax salaamaaleykum comme ni mu ko waxee rek waa ji bi mu ñëwee man ci buntu kër bi la ma fekk man nag sama benn cousin du toog bi mu ñëwee martu la yor ak ay saafara wala asib daal parce que bi teel la yore bi mu ñëwee man ko yow lan la mu ne ma sunu kër la fii sama kër la man ko yow fii du seen ci laa daw dugg ci biir kër gi nu abal woo sama nijaay mu génn ak sama tànt ah waa kon bi ñëw kéwanteeg ñoom ci lan jaaree daw moom nag tekku ko neen dina ko gaañ bañ ci dara wasalaam man loolu am waaw donc sëñ bi man dama leen bëgg a woon sax li tax ñun moom kër gi toog fi ñun tooguñu si kër gi ay waxu neen ak ay waxi kase kayit yi moo nu téye si kër gi lii bi ko papaam di jaay sama sœur bi kayit gii la ko jox lii acte de vente bi la témoins yi am na ñuy dund mais yoon xëy na moo bëggul loolu moom loolu intéressé wu ko booy bi nag ñëw na agressé nu yor marto photo noonu ko filmer noonu ko yor saaku saafara menacé sama sœur bi te butéel bi mu yor sax man ni ma ko xoolee butéelu acide la parce que foto nañ ko daf nu def menace de mort moo tax nu bëgg a siiwal lii si tàng-tàng bi waaw bu yor nag amee si dëkk bi lii war nañ si gaaw taxaw parce que ñun bañu nu si dara de bañu nu si bakken bu tëdd parce que ñun ñoo moom suñu alal waaw te ñu ngi toog si suñu biir kër di leen xaar nu del siwaat loolu daal laa bëggoon ngeen xam ko lii moo nu fi téye muy suñuy këyit yu leer a leer naññ naññ comme que danoo menacé de mort nag agressé sama sœur këf saagam loolu tamit dinañ leen porter plainte ma bëgg loolu mu mu leer waaw